Ah, aleykum Ousmane Tanor Dieng ak ñamu àndal tey la ñuy kajj dàq Khalifa Sall biir PS wala fañ ko fay bàyyi lépp tey lay leer ndax comité directeur bu PS danañu amal seen ndaje ngir andi atte ci Khalifa Sall ak ñu ànd ak moom fippu biir PS wal fajiri yéen kaay ñu ko xamal yéen kaay bi ne xiiroo ngaayoo biir PS yàgg na waaye seen ndajam tey mi nag ci lépp di leeree laneen lu leeragul mooy xaalis bi Mimi Touré wax ne la ñu ci tra leeral xaalis bu bëri boobu si du quotidien moo ñu ko xamal ñoom waa PDS nag li ñu jàpp mooy état bi nguur gi waxuñu dëgg fa ñuy sos rek Ousmane Sonko mel ni ku leen di tontu na leen bu leen maas nuun gi wax leen ki nga xam ne moo waxu dëgg dëkkee ay sos yu tooy xepp du kenn ku may Mimi Touré li mu wax moo ne dëgg ci les écoles yi ne kaay Sonko nee na am na yoo xam ne dafa rus lu gàcce la ci kilifa gu mel ni Mimi Touré mu di ko wax la mu diabo Da Gar Times, Mônica. maanaam bañ ko yëkkati su ko defoon ñu naan fay politique ak fay njaboot ak Ablaye Wade gi te dara ci amul kàddu Mbaye Mbaye nag mi ngi ci enquête yéen a kaay yéen a kaay bi di l'observateur moom xëy di laajte ne ëllëgu Mimi Touré ci politique fan la nar a mujj ah, leen hee daf leen ndànk de yéen xamu leen Mimi Touré li muy def xam na ko fa bëgg gaañi buñ ko suul rey ko ci wàllu politique bëgg dund nag ci politique moo tax muy wax yenn wax Momar Thiam na ko waaye Mimi tamit toll nii xat la ca APR Moussa Diaw na ko yokk ci état toogaayam fi toll nii jekkut de waxtu wu nekk mën naa tëb kii tëb dëgg nag bàyyi parti ba mu nekkoon PDS wutali ji Macky Sall APR du kenn ku may Sada Allah laas yéen a ah yaa seetal Sada Ndiaye moo fi andi woon loi bi dàquloon Macky Sall ci assemblée nationale mooy meeru ngi ji lam ca diwaanu Matam yoroon wàllu élection yi ci PDS les éco yéen a kaay moom di ñu xamal na mbiru la Soleil yéen cara. jangal bu lew dañu sen ca kaw lax ndangam momit ci la nopp